salli ala allazi bi tujibu sayyidina dhil mu'jizati bisalaam bil aali wa saabin mudaasi salaam wa kun liya dahra wa kun ma'i wa kun lii saa'iqan fawqa mbokki jullit yi maa leen di nuyu rawatina bokki talibe yi di ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxal Basir jataay bi nag bu ngeen ko gisee dañoo am bis bu mag bu ñuy waajal muy bisub cant Serigne Touba Serigne Jil Abdul Khadir di ci tuba Serigne Touba di ci sante si Abdul Khadir euh, mbake muy bisub màggalu si Abdul Khadir mom lañuy ñuy cant euh, ñu ñewon fi ci Ndindi nak mu dara jale ko Serigne Salihu Nger ñu ñewon fi nak tay ji fasiyene cheikh ak mom waxtaan mu fas euh, ay ay bokki talibem ak ay am di ak ay sopem yep ñoo motax ñu ñew fi tay ji rabbi jox parce que yéenee jox kàddu mu jotali kàddoom euh, ci woo bokki jullit yëpp woo waa Ndindig yëpp woo bokkam yëpp daal moonu dajale fii tey jii noo ngi nuyu ñëpp di leen siyaar leen ñaanal jàmm bu ngeen gisee bis bi daal bis la bu ngeen gisee jataay bi loolu rek mooy sabab bi bis bu ñuy waajal muy bisub cant di ci woo jullit yëpp di ci woo murit yëpp di ci woo ñi ci biir réew mi ak bitim réew ñëpp ñu ngi leen ci woo ñu jox sëriñ bi mu àggale kàddu yi ndigalu sëriñ Saliou mbokki julliti mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu wér ci kàddu sëriñ Saliou ngeer eh, saalum saalum si Ahmadou Bamba ñu ngi jiite ci nuyu bi siyaare bi sëriñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak eh, kàddu yi nag bu ngeen ko déggee ngeen xam ne daa am bis bu màgg bu ñuy waajal bu ne suñu kanam muy bisu màggulu sëriñ Abdou Khadir Mbacké eh, radiyallahu anhu ki koy def nag mooy sëriñ Abdul Xaadir Daraame euh, bis bi nag euh, mu jël ko dara jaale ko sëriñ Saalihu Ngeer saalum saalum si Ahmadu Bamba muy lu rëy ci moom nekk lu màgg ci moom loola waral jotaay bii ngeen gis euh, bis bi nag nekk na bis bu mu fonk fonk it ki nga xam ne moo ko ko tuddee moo ko darajaalee di sëriñ Abdul Xaadir nga xam ne moom jàmbaar la kenn la ci biir kër gii ndax bis bi nga xam ne moom Serigne Saliou moom lay defal Serigne Saliou jàmbaar ja bu yegsee Serigne Abdou Khadir bokk na si ñi nga xam ne ñu fës la ci bis bi yoo xam ne maanaam bokk na ci ñi tata tatagal gan ñi ba noppi bu gan ñi di ñibbi fii lañ koy bàyyi kon cofeel googe ak fonkeel googe moo am ci Serigne Saliou tax na mu jël bis bi dara jaalee ko ko Serigne ji li Serigne Abdou Khadir ne Serigne Saliou ne ne li nga def yëg na ko rëy na ci moom lool ba moo tax moo jotaay bii. ba loolee tax na mu ngi ciy woo mboolem mbokki suñ daara bi bàyyiwut kenn rawatina waa daara Cheikh Mamadou Fadal gii mbokk mboolem suñ daara yi nga xam ne ñu ngi ci biir ndindi gi Serigne Saliou Nguerne mu ngi leen di woo ci bis bi ndax nekk na bis bu mu fonk lool di ci woo it waa kuréelu Foskab Serigne Saliou ne mu ngi leen ci woo ci bis bi ngeen xam ne bis bi seenug bis la euh, ndax kenn ngeen ci moom di ci wooyit mboolem ay wëlëreem ay am di jàmmam bàyyiwut kenn képp koo xam ne. amante nga moom ab àllaax sëriñ Saliou ne ne mu ngi lay woo ci bis bii ndax ki ku ko dara jaale daa nekk ku mu fonk lool koo xam ne ginnaaw bi leen suñu borom boolee ñu bokk lu ñu bokk maanaam yàlla dakaa booleatam moom e, ci liggéeyal sëriñ Touba te moom muy kenn e, ci waar wi di ci def lu am solo e, gis sëriñ Saliou yi nu mel ci ku tedd ki nga xam ne amul sago ci moom loole tax Euh, bi bis bi taxawee xelam demul ci kenn ci kum dem mooy Serigne Saliou Nguer ne na moom la koy darajaalee kon bis baa ngi noone ñi bokk waajal ko rek mu nekk le neuf Soulin euh, incha allahu rabbi Serigne Saliou ne mu ngi ci woo mbooleem xaritam mu wëlëreem am di jàmmam bàyyiwut kenn képp koo xam ne yaa ngi dégg kàddu gi rek na nga jàpp mooy woote Serigne Saliou ci yow. yaa ngi si jotaay bi suñuy kilifa ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sëriñ Jiili Abdou Xaadar mi nga xam ne moo amal bisub sant turandooram bu baax bu sell ba di sëriñ Jiili tuddee ko dara jaale ki nga xam ne mooy sëriñ Saaliw Mbàkke sëriñ Saaliw Nger mii di sunu mag di sunu kilifa ñu am ci mbégte lool am ci kontaan ne lool di wax ne bis bi sunu bis la bis bi bisub waa daayira Foskaab la ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp bàyyiwuñ kenn di si woo njiit la soxna Bintu Seck di woote si turu soxna yëpp bàyyiwuma kenn maa ngi woo sama mbokk soxna yëpp di wax ne bis bi sunu bis la rawatina waa Ndindi sëñ Fallou gi maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn kon waajal leen ko bisu sëriñ Saliou moom sunu bis la ndax moo di sunu baay di sunu kilifa kon bu xewlee ñun ñëpp war a jug rawatina ñun waa Ndindi di woo képp ki nga xam ne rek jaaroon nga ci daara ji waa groupe bu Saalum Saalum Bamba maa ngi leen woo ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn mak ndaw yeen ñep ma ngi leen wo ci bis khalidi ya aliyan an walidin walidi ya assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu ñep di rafetlu euh, jotay bi di sante bu baax cheikh ahmadou bamba khadim rasul di ñaanal bu baax cheikh mamadou muntaha ci mborom yagal ko fi lool ba yene ji am ci liggey seigne tubaab bi mu matale lepp ñu and ak mom ci barke Cheikhul Khadim sëñ Jili Abdou Khader Dramé ñu ngi lay siyaar di leen ndokkeel ci bis bi ñu dëgmal lii nga def muy cër bi nga ñu cërale ci bis bi rey ci ñun lool yëg nañ ko itam incha allahu taala dañ ko ànd ak yow ci saayir ak ci baatin incha allah di ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim ci barke Cheikh Abdou Khadre Jili ci barke Cheikh Abdou Khadre Jili mi ngi koy defal mbollem bis bo ma sa def rek bi yàlla nako ko faw ko ci barke Serigne saliw diggante Cheikh Abdou Khadre Mbacke ak Serigne saliw samedi ak dimanche la bis doxu sen diggante kon li nga def du azar mom mi Cheikh Abdou Khadre Mbacke ibnu Cheikh abdou khadim rasoul mom lay defal bis bi e, di turandoo Cheikh Abdou khader ñun ñi mu cërali ñu si bis bi euh kuma xam xam ma e, nii si mborom nattoo ma ci Serigne Saliou mbake ba nopi mu nekk suñu turandoo kon sa jili li mel ni li nga def e, du asar yegg nañ ko nak fonku nañ ko itam lool dañ ko ànd ak yow incha taala kon nak bis la hamne, xamne bis bu mata Euh, gàttandu la bis bu mat a bàyyi xel la ndax bisu sant la bisub fàttali ko bisub ñaan la seen jili daraay mi baaxoo ko def yàgg koy def ren jii mu jox ñu ci cër bii kon euh, seen jili lii nga ñu defal it euh, rëy na si ñun lool waaye nag incha allahu taala maa ngi ci woo mbooleem koo xam ne lépp lu ma nekk nga ànd ko ak ñun ñu ngi lay woo ci biir sëñ Abdou Khadir Jilaani bi ndax sëñ bu dara sëñ Abdou Khadir mii ñëpp xamee nañ ko ak man day sama xarit ginnaaw bu ñu bokkee li ñu bokk ba noppi kon bis bu ma fonk la lool maa ngi ci woo mboolem waa daara ji ñoom laa ci jiital eh, di ci woo itam mboolem ku xamante ni bokk na ci fondation FOSCAP soppee Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Ibra di ci woo wëlëree xarit yi am di jàmm ñu bàyyi ma kenn rawatina sama mbokki sëriñ daar yi Mang ci suma ci si ko mané mel ni sëñ Bassirou Dramé sëñ Jili Mbacké eh, ñoom sëñ Abo sëñ euh sëñ alay saxo ñom sëñ Jili Cissé mbolém sëñ daar yi rek sëñ Modou mahamoud Dramé ñep rek sëñ daar yëpp maa leen ci wo bis bu ma fonk la té nit ki nak buy dem ci barab bu mu fonk day and ak ay nitam ñum fonk lool and ak eh, ñom kon suñu bokk sëñ daar yi bis bi seen bis la na nak wa Touba Ndindi Cheikh Modou Fadal kon bis la boo xamante ni sëñ Jili Mbàkke sëñ Jili Daraay mi ngi koy defal Cheikh Abdou Khadim Mbàkke ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasul yàlla dogal mu mu cërale ñu si ab cër dara jàll ñu ko kon maa ngi ci woo ñëpp ci woo suñ mbokk Baye Fall yëpp ku ci mel ni Serigne Cheikh Fall sama xarit moom itam ñu ngi ko ci woo e, mboolem dëkkandoo yi nag ñi ma ñi ma dëkkal itam nañ waaj bis bi daal xam naa moom incha allah ren jii nañ xam ne moom bisu cant la boo xam ne Eh, cër bii ñu si jox bu soobee yàlla bu ñu si bu ñu si yàlla yóbbu ak jàmm incha allahu taala da nga xam ne lii nga ñu cërale si bis bi fonk nañ ko te jàpp nañ ko di ci woo itam mbooleem sama samay wëlëre samay nit eh, ku ci mel ni sama xarit Jibi Fall ñu ngi koy woo ci bis bi moom itam eh, am naa su ma duggee ci lim rek mën naa gën a guddal jotaay bi waaye mbooleem koo xam ne ni sama nit la rek maa ngi lay woo ci bis bi sëñ Jiiri Dramé di ko defal Cheikh Abdou Khadim Mbacke ibnu Cheikh Abdou Khadim Rasoul incha allah la neuf su lay doon yal na si yàlla yóbbu jàmm may ñu fekk ak tal te lépp luñ ci def yal na suñu borom nangul na ko ci barke Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul